kola fu mu jëm nga topp ko di lagar lagari nekk ñàpp kole ko nii kole ñàpp ba pare am na nit ñoo xamante ne xoola non c'est impossible am na ñoo xam ne dañoo kola foo jëm ñu bëgga lambar lambari topp la léegi yow da ngay dem ba maar mooy waral xoola nit ki dem ba sonn xam na yow bu fekkee yaa ngi dund ak moom ci àddina doo ko may jàmm mu reylu la mbaa mu rey la nit ñi léegi dañoo sadik xoolatuñu dara ku ciy génnati ak nit relation bi damul jàppal ci yàlla ngir yàlla li lay war a sol nga bàyyi ko je pèse bien mais moom nag néew ma relation wu kii ak ba ñu ko reyee li ma wax a tax du gën a fii génn na fii de déedéet dama ne la majeure partie des gens ku ciy génnati ak nit ba mu ne la bàyyi ma relation bi na fi yem ngir yàlla li lay war a sol amal xolu nga bàyyi ko relation bi jeex waaye yow yaa ki mu laa naa ànd dagan na fi sa dagan ku nekk bu la neexee mun ngaa ànd ak ku la neex waaye bu jeexee nag na jeex waaye yow nit ki ne la bàyyi ma rek nga ne doo ko bàyyi fu mu jëm ngay lambar lambari ni lambar gaañ di ko topp di laggar laggari kolaa doo ko may jàmm fàtte ko bu buggee noppalu ko ci àddinaam nag moom xam nga nu muy def dalay rey mbaamu reylu la nit ñi léegi dañoo sadik seetatuñu dara seen naf su bakken bii lañuy toog bu ñu buggee am jàmm nag toog dund ci jàmm ak salaam mooy am na relation xamante ne day yàgg nag yàgg goo xamante ne relation yu yàgg yooyu nga xamante ne day yàggaa yàgg def ay dix relation di dem ay dix nga nekk ak nit ki du ngeen ànd du ngeen bàyyante du ngeen ànd du ngeen tàggoo di ànd di xeex ak xuloo bu ngeen juboo tey suba ngeen àndaat gannaaw suba ngeen nit da ngay am personnalité dignité nit da ngay am fullaak fayda boo xoolee ne kii jikkoom neexatuloo te doyu la ngir yàlla seetal ci yàlla nga bàyyi ko te bu dee la bàyyi ma bàyyi ko bu nee la bàyyi ma amal ngoru bàyyi ko waaye yenn saa yi nga gis nit muy génn ak nit du ko may jàmm du bëgg a tee ànd ak moom de day bëgg a ñu dañuy bëgg a bàyyante sax waaye kenn ka moom moo dul bëgg a bàyyi ne nga tam moom am na ñoo xam ne bu ñu ba jàppee rek ne du ñu bàyyi ah lu mënatul dem danga koy tas mu jeex ku nekk dem du tee du tax ngeen nekk ay ennemi du tee ngeen nekk ci jàmm ak salaam nekk ay xarit waaye am na nit ñoo xam ne tey boo ne leen bàyyi ma bu bu booy génn ak ñoom ba ne la bàyyi ma ñu ne déedéet bàyyi ga moom du fa am sa jàmm moom day jeex ci àddina moom fan ngeen ko teg ànd daganul fas a dagan waaye yéen daal ngeen ne ànd daal bu àndee rek euh, euh, fas a du am ah léegi nag nit bu sonee maar son dalay sàkkal pexe soit mu rey la mbaa mu reylu la pour lan mën a dund ci àddinaam waaye nag nga rey nit ka mbaa mu rey la tamit loolu tax du tax nga dund ci sa àddina ci jàmm ak salaam ndax nag rey nit nag daganul ci àddina de daganul fenn je pèse bien mes mots encore une fois néew ma relation wu kii lii laay wax ak bu jël samay wax di ko saag bu kenn jël samay wax teg fa tamit keneen dama ne ku ciy gën a teg nit ba mu ne la bàyyi ma bàyyi ko ku ci nekk technique teg ba xam ne yow mii ki nga nekkal nii xam nga ne kii bëggu la te yow doyatu la tàggoo leen ci jàmm mu jeex waaye Sénégal ngay gis ñaan ñoo xam ne dañuy ànd bëgganteetuñu de mbëggeel amatu fa de xam nga lan moo fa am ergoye org ergoye orgoye nuñ koy waxee sax orgueil égoïste orgueil égoïste moo fa am mais xoolal relation amatu fa kenn ka ne moom du bàyyi moom ne moom daal du bàyyi li ñu naan lekkoo ci ndab li waaye yow foog nga def ci suuf fan ngeen ko teg lekkoo ci ndab li mais foog nga def ci suuf a ah, seen dundin yooyu tant que bàyyiwu leen ko ay erreur rek ngeen di def ay erreur tant que bàyyiwu leen seen dundin hypocrite égoïste naa feq yooyu dundu saytaane fi mu sa rambaaj yooyu dund yooyu nga xamante ne yaa ngi reetaan nit ki mais yow xam nga ne en âme conscience que yow kii mbëggeel jeex na fa bëggatoo ko nit da ngay déggu sincère nit boo demee bo xam ne yow mi sa xol bi supporteetul nit ki ñaanalante leen ci jàmm ku ne dem bu kenn dencal sa moroom dara waaye fa ngeen di nekk kee di dencal moroomam lu bon kee di dencal moroomam kii ah waaye tamit eh, bu ngeen nekkatee ba nekkat bonatu leen na nekk séparé wu leen nag ku nekk dem Sénégal jëm kanam ah teraanga àddina bët ah te yàlla daf leen fee wàcce pour ngeen dund waaye yow nga ne benn nit bii daal yow yow pour yow benn nit bii daal moom yow yow daal lañ ko fi wàcce lool loolu fan la am loolu daa mën a nekk ah nee naa la bu ma jógee foofu damay ñëw ci kan Massiré Issa Dieye Fatim Penda ak Mañaan moo am fu la kay Massiré Issa Dieye dafa mettre à sa place journaliste ba ne ko yow sa tànk bu mu fi tegooti sax dama ko faa nag Viviane xam nga nit yenn saa ngay noppi ñu jàppee lam dof ngay noppi ñu yaakaar ne yow mii ab buq ngay noppi ñu yaakaar ne yow mii ab buqat nga wala yow daal ku xamul dara waaye gis nga démb bi mu tontoo journaliste bi dama kontaan am mbégteeg bànneex xam nga journaliste yi bu ñu bu bu Viviane ñëwee ñoom ñu dem fa lan lañ ko ba war a wax ah Vivi ñu ngi lay félicité vraiment ah, ñu ngi lay félicité ñu lay encouragé ci trophée bi nga xamante ne indil nga ñu ko yàgg nga ñoo indil ay trophée waaye yàgg nga ñoo bégal nee naa la yow wax dëgg fa yàlla takkal nañ la ndombol tànk bu nekk ñu ngi kontaan ci loolu di la félicité comme ñun sénégalais yi mënuñu laa jox euh, trophée ndax ñun dañoo bon soxor ñaan ñañati ah ñun moom duñu jox nit trophée waaye dañu lay nekk daal ah, nee naa la di la ŋaañ ak di la xas loolu ngeen ko waroon a wax mais comme nag waa Amérique jox nañ la trophée ñu lay gërëm di la san la ñaanal trophée bi nekk ay trophée trophée nekk sa dig waaye xam nga lu fa nekkoon di ko laaj naan kaan ah yow sa métier bi ngay def lan nga fi ubbeegun lan nga fi defagun mu ne leen fii ngeen toog nii xanaa gisu leen ko xam nga moom dafa am fulla am personnalité ak dignité fulla ak Youssou Ndour googu noonu pat ak Youssou xam nga ba mu ci jëndee ba tey euh, kiiwu ko Euh, dalee na tontu mettre leen benn par benn ku ci nekk sa place nit bu jëlee tee ndamam indi ko bu leen xajamal ndam la ndamal jaamur kenn du ko xajamal démb nag wax dëgg fa yàlla sama waa ji sama waa ji xam nga man dama bëgg Viviane bu mooy wax ci man bu wax ci moom sama xol bi day sedd di gundaandaar ah waaye journaliste bu ci bàyyiwul xam ni ngay laaj ak loo warta laaj ak loo war a laaj ñu mettre la à ta place rek bu ko defee rek <laughs> teglaat la sa place nga delluwaat toog sa place Bibi Mala Faan ak yaayu Zeyna ak Philippe waa jigéenu Pape Cheikh Diallo woyli woyli bi sañse sañse bi waay styliste bi ah waay maa la bëgg waay dafa mën a tontu tontu ay question benn par benn xam nga moom dafa am classe am personnalité dignité ba pare am fula dégg daali démb ak tey ak daali masaya ah sa jëy fatim penda ak ma ñaan eele eh, kama sala naaxira atoy sa sabali bref nee naa la nag bu ma jugee foofu ah damay ñëw ci ñi nga xamante ne dañuy yor soxna yor njaboot nit boo yoree soxna nga yor njaboot da ngay am personalité ak dignité xam bu baax fi ngay teg sa tànk ndax nee naa la sa njaboot yi dañuy màgg suba te nag nga toog fii sa doom yi màgg suba ñu naan kaan sa yaay fi doon def lii wala sa papa fi doon def lii en tout cas loolu ku ci nekk rek war nga koy moytu waaye war nga koy daw ndax naan nee naa la nit ci sa dund ci sa àddina nekkatul yow kese da nga am doom ba pare nee naa la xoolal doom nawle la sa doom mun na fi màgg wara doon dara ñu ne ko nag lii nga nga fi bëgg a doon ndombol tànk lii kenn du la ko fi takk kenn du la ko fi tappal ndax nag sa baay euh, béy bu woddu woon mu yaakaar na jigéen la daal di koy tëddee waaye sa yaay fii la nekkoon na nee naa la di njaaloo loolu ku ci nekk rek war nga koy moytu ci nekk nekk parent war nga di ko moytu xam bu baax fi ngay teg sa tànk waaye nee naa la xam bu baax li nga xamante ne moom ngay def waaye yow yaa xayti laa naa yow nga ne daal yow foo jot rek daal di ko fay sotti waa lii mbaa jàmm la tamit ah nit da ngay am personnalité ak dignité garder sa dignité garder sa honneur boo yoree surtout nag nga nekk quelqu'un si tu es quelqu'un dans la vie ou quelqu'une il faut nga xam bu baax li ngay def ci àddina parce que nekkatul yow kese mais yow yaa xayti mu laanaa yow mbaam mu romb nga bëgg kaa doxaan xaj bu jaar ne nga bëgg kaa doxaan pour lan loolu ah a ngi bëgg lu yombak ak lu nooy respectez nous si vous respectez pas vous même gu nu respecté respecté leen nit ñi ah nit da ngay am fulla fayda am personnalité ak dignité nit war nga yow nga ne man li jombale naa ko def sama bopp jombale naa ko def ah surtout nga am njaboot en tout cas nañu respectante ku ci nekk na nga jox sa morom cër te ngeen bàyyi xel ne nit boo nekkee ak moom bés day ñëw xool relation ba bu jeexee na jeex ku ci dem ba xam ne kii mënatoo nekk ak moom bàyyi ko ku ne dem bu kenn dencal sa morom rancune parce que dencal nit bi rancune mooy waral nga daal di ñëw fekk ko daal di koy rey boo ko mënta rey reylu ko dafa ñaaw bu leen seetaan sama vidéo bi gis ma ni may bellee nii di naa yi nee naa la man dama belli naa yi am sama style bu leen seetaan vidéo bi mu neex a neex a neex ba ngeen fàttee ñëw le soleil chez Adams jàkkaarloog dexu maam sang gi di lekk seen i crevette calamar gambas brochette de lot dorade coof poulet frite poulet yaasa langous cameroun sigal ngeen di ko lekk rek ñu leen koy servi mu daal di neex a neex a neex nee naa la bu leen seetaan vidéo bi mu neex a neex a neex rek ba ngeen daal di fàttee ñëw añ si le soleil da ngeen di jàkkaarloog brise bi ay langous yu doy waar lañ leen di defaral rek daal di leen koy servi rek nu mu gën a naay see ah lekk ga neex na set na sell na bu leen seetaan vidéo bi ba mu neex a neex a neex rek ngeen daal di fàttee ñëw añ si en tout cas félicitation masirek sa jëy fatim penda ak maañaan maria sin may sa bige maria sin maar nag mu ngi yor ay dat yu xeere yoo xamante ne nii rek mu ngi koy pare jouer fans yëpp ñu di leen ci woo di leen wax ne seen artiste seen daanaan nee naa la c'est king of gaynde gi président de tous les présidents waaye woykat nee naa la la Cheikh Mbacke wax Cheikh Mbacke nee na waali bu la bëggee taal dalay taal waali nag géej mbambulaan la te géej mbambulaan goo xamante ne nii chaque jour rek marée haute lay nekk du nekk mare baas moom loolu la waali marée haute la géej la waaye nee naa la marée haute la du nekk marée basse xam nga géej yenn saa mu daal di nekk marée haute yenn saay mu daal di nekk sell na bu leen seetaan vidéo bi ba mu neex a neex a neex rek ngeen daal di fàtte ñëw añ si en tout cas félicitation masirek sa jey fatim penda ak maañaan maria sin may sa bigé maria maar nag mu ngi yor ay dat yu xeere yoo xamante ne nii rek mu koy pare fan si yëpp ñu di leen ci woo di leen wax ne seen artiste seen daanaan nee naa la King Daof gaynde gi président de tous les président waaye woykat de tous les woykat nee naa la la Cheikh Mbacke wax Cheikh Mbacke nee na Wally bu la bëggee taal dalay taal waali nag géej mbambulaan la te géej mbambulaan goo xamante ne nii chaque jour rek marée haute lay nekk du nekk marée baas moom loolu la waali marée haute la géej la waaye nee naa la marée haute la du nekk marée basse xam nga géej yenn saa mu daal di nekk marée haute yenn saa mu daal di nekk marée baas waaye moom marée haute lay nekk saa su ne ñu koy ñaanal jàmm ak salaam gudd fan bu ànd ak wér yàlla daal di koy làq fu yàq yeggul ndax nee naa la nit ku baax la nit ku généreux nit ku am personnalité ak dignité nit ku mën liggéeyam waaye nee naa la nit ku mën nitam nit koo xamante ne nii la Euh, wax dëgg fa yàlla ku mu teg loxo rek nee naa la dangay dem ndax nee naa la ñi mu teg loxo ñëpp ñu nga ca kanam nekkuñu ca ginnaaw amuñu tànki ginnaaw tànki kanam rek lañu am kon Maria Sin may sa bige Maria Sin maar seeri soxna ay dara karara euh, baayu ndeela baayu Mouhamed waaye nee naa la baayu moomi waaye nee naa la baayu jaaga mu ndaw ñu di la ñaanal rek jàmm ju bëree bëree bëree bëri nga daal di koy am am gudd fan bu am wér ah di la ñaanal naataange xéewal bi di gën di yokku sama vidéo xoola bere fag yaa xayti murana waru ko a doy na waar